jàppoon na loolu perception ren daanaka amul woon ndax su mesure ñëwee ne spectacle du am day dagg mais nag Sodav amoon na report positif de trésorerie de plus de deux cent millions plus la fa ne woon mais suñu xoolee sax la ñu fay sax moo ëpp lu ñu percevoir. mu ngoog ñu jaaree noonu jàll ci rubrique seen xalaat. man maa ngi dëkk fii si kootu man la Ngouda Gueye laa bi ak soble bi jafe-jafe bi nga xam ne la béykat yi am moom laa leen di li si Potou région de Louga mairie de Léona am nañu soble bi li si yàqu kenn xamul nu mu toll fii état bi seetaan béykat yi kenn jàppalewu leen ñoom ñi nga xam ñoom tamit jàppale askan moo leen fi tax moo leen moo leen ñor ñu jëm leen ko envoyé ñoom tamit ñu jëm ko jàllaleel le président Macky Sall jot si ndax ci baykat yi fii son nañu leb nañu banque yi banque yaa ngi leen poñe ñu war a fay seen xiyaar amuñu ñu fayee yaakaar ñu lu soble yii kon ne ñu ngi gëstu président na nga ñëw gaaw lu gaaw welu leen su ñu gën a gaawee yaakaar ñu si kenn gannaaw yàlla yow la ñu yaakaar yow président jëm seen seen si ndimbal ak sa taxawaay yéen waa Sen TV bi na ngeen ko si président yëgal lu ñu yëg ko mu jàppale béykat yi yi nga xam ñoo nekk si commune de Léona. asalaamaaleykum waa Sen maa ngi ziar bu baax baax. di wax ni am naxar rek moo tax tey may dugg fii di def li mooy que ne ñun ñu ngi dëkk si village Sorokoñ village bi nga xam mu ngi tudd Sorokoñ bokk ci commune de Kay commune de Kay bi na moom mu ngi bokk ci région de Kaffrine te commune de Kay boobu mu ngi composé trente deux villages trente deux villages yooyu boo compte tey quatre villages ñoo ci am courant cinq villages amuñu yoon bu baax amuñu jëmukaay bu baax mu nekk li nga xam ne ni lu ñu métti la ñu koy naqar surtout village yi nga xam ne moom tax di ginnaaw muy village Sorokoñ tey amuñu courant amuñu yoon bu baax bu yàlla di tawee tey bu ñu bëgg ñëw Kaffrine yaakaar naa tey dina demee neneen da ngay oto dugg si saret loolu tey lu métti la. di nuyu waa émission des média bi yëpp di wax na mag sàll li muy def ñun askanu Sénégal séntuwuñu loolu ci moom. tey jii si benn dix ans ñaari avion réparé na fi suñu avion def ci ay milliards tey jii mu ngi jënd avion soixante milliards le Sénégal n'a pas besoin de ça. instant bi nii askan bi ñu ngi sonn ci problème mu ëllëg ñu ngi toll nii mbënn maa ngi ñëw ci kanam tuuti Sénégal yëpp dana taa parce que problème bi mooy taw yi day am ay mbënn mu ñu xalaat ci loolu ñu jël ay soixante milliards di ko jëndee ay avion man saa yu bëggee voyager ne na lu na na jël jet na luwee jet privé wala mu jël dugg ci avion yi passe comme tout le monde parce que pays puissance yi fii kenn président yi kenn amu ci avion waaw moo gën mu jël suñu xaalisu réew di ko jël di ko foye ngeen ci loolu ñu ngeen ñu leen di jëfal bu euh, baax a baax yéen itam def leen ñu ñoom ngeen yónnee ñu seen i vidéo ci whatsapp bu groupe des médias Abdoulaye Mbow waaw euh, damay tàmbale si kii njikk wax parce que xam nga dans le secteur horticole Sénégal def na si ay jéego yu yu am solo si wàllu production bi li jëm si soble bi te mu tudd ko Sénégal atteindre autosuffisance en oignon waaye boo xoolee chaque fois dañuy importer ay jamono dañuy importer li nga xam moo di moo di soble lu tax parce que soble bi nga xam ne ñu ngi koy bay fii dafay mujj nëb parce que dañu gis ko ko jënd day mujj nëb parce que production bi ni muy yaatoo amul ay unité de conservation te war nañu mën a fexe ba nga xam ne zone des Niayes bi nga xam ne produit horticole surtout lu wàllu soble euh, dafa def see am solo ak dal dal dans dans la de du delta soble bi dafa am solo ñu fexe ba nga xam ne soble Sénégal dafay nekk soble de référence soble de référence ba nga xam ne ñun daañu am consommation bu ñu doy parce que yegg nañ ci. waaye itam lii nga xam ne moo di wàllu mango nga xam ne lu bari ñu koy exporté mango bi labellisé nañ ko. Mm-hmm. ñu fexe ba nga xam ne mango bi si wàllu boppam daañu ko mën a fii mbir yu am solo moo accessible aux consommateurs sénégalais yeneen produits dans le secteur horticole casalika ba nga xam ne lu bari dootuñu ko mën a jéegaane dëgg rek la il a bien synthétisé que kenn mënu ci yokk dara lu dul gaa ñi gën gën a gën a xarañ gën a am Pastef fulla mais aussi il faut que sunu kilifa yi ñu gën a lucide lucidité baax na trop mhm. bañ a topp rek euh, yàlla rek a xam kuy fekkee suba ak gannaaw suba te bis penc wax ko kilifa yi fi ne muy opposition bi wut nguur muy nguur bu fi ne yàlla nga gën nga bañ a gëm nga dégg nga bañ a dégg sa xol fatt bañ a fatt mhm. saway di nga rendre compte ka nangu alhamdulilah ka nanguwul mhm. bàmmeel xam na de te sénégalais son nañ Mansour ma jeexale ci comme Abdoulaye fi mu wax mbayum soble bari na loolu Sénégal mhm. mais problème bi Abdoulaye du Sénégal am na mu ngi bay quantité bi mu soxla ci soble mais ñen ñooy bay soble si mhm. c'est-à-dire que majorité soble bi ñuy produire Sénégal ay étranger ñoo ko fi bay ñoo ñëw ñu jox leen suuf ñu bay ko soriwul dara fi wetu Thiès Ngomen mhm. baykat yi fa bay ci wetu hollandais yi ak yeneen étranger yi ñu ngi stocké seen soble man ça fait deux jours maa ngi fi bëggoon dem parce que dañu ma topp di ma woo pour ma dem fa xooli soble si mhm. mën leen filmer leen foto leen yónnee ma mais am sama benn frère bu fa nekk ma yabal ko fa mu dem xool ñooñu tey ay angaari soble lañu stocké yoo xam mu loolu fexe ba du yàqu. boole ci étranger yi ñu dendaloon ñoom jaay nañu parce que produit yi ñuy utiliser day tax seen soble gën a gaaw a ñor ba noppi gën a rafet. fi nekk ñooñu seen soble soble réew mi la de mais ay étranger ñoo ko moom moom la bay moom la ñuy jaay ci marché bi ñoom seen soble mu ngi commencé yàqu ñu ngi ko stocké bàyyi ko foofu. quant à nag ki doon wax ci wàllu avion bi euh, am nañu sañ-sañ wax Sénégalais que dañu moom di wax nee naa bu ngeen dee jooy tooti joytu rappalaan joytu montre joytu leneen jaadu na. mais filmer leen fi ngeen dëkk ngeen préciser réalité fi ngeen nekk ndax li ngeen dee wax bu ñu leen dugalee kaso sax mbaa ñu dugaleen ci mais ku fa ñëw xam ne li ngeen wax dëgg la bu leen bu leen attaqué ay avion ay nangam feeñal leen difficulté yi ngeen di dund ñoom ñi ci kaw bu ñu ko saafara xa xayrun bu ñu ko saafara ñu xam ni ñoom ñu ngi gundaandaat mais sénégalais ñu ngi souffrir et loolu lu lu war